di euh, une importante plénière dina am euh, qui va apporter des modifications dans le code électoral euh, dina am une révision constitutionnelle tey ñi nga xam ne en commission les députés de Yewwi ak dañoo absteniru par rapport à la formulation de l'article l'article vingt-neuf mu am benn mbir bu ma ci gis ñu ne bu benn bu benn candidat décédé le parti bi ko tabb am na droit teg beneen candidat et les élections peuvent être euh, reportées par le conseil euh, par le conseil constitutionnel article boobu daal ça ça ça pose problème euh, donc Thierno Alassane Sall a voté contre les députés de Yewwi euh, se sont se sont abstenus jeudi plénière bi dina am il y avait aussi la modification de l'article 87 de la constitution finalement euh, retirée après le tohu-bohu que ça ça que ça le jeu des manœuvres dañ ko déplacer aujourd'hui au niveau de de de l'hémicycle parce que du côté de Pastef on est catégorique ce qui se passe à l'hémicycle c'est fait sciemment pour écarter Ousmane Sonko et bénir les candidatures de Khalifa et de Karim Wade. waaw euh, man euh, dama jàpp ne euh, déjà dafay jafe jamono ji ñu toll nii ñu xam exactement. ku nekk lan mooy sa mbébét ak fan nga jëm boo bëggee def spéculation ñeme yàlla nag mën nga gest bu nit teg. nga am ci suspicion nga am ci suspicion xalaat ne lii moo tax mu def lii. nañ jël le problème de l' article quatre vingt de la constitution man li ma comprendre pourquoi président de la république mën a retirer projet bi rapidement c' est parce que au fond le projet du woon pour moom. ah li ma gëm. pour kan la woon. pour futur président de la République la mais le futur président en a besoin parce que il aura au, mois de septembre la possibilité de dissoudre l'Assemblée Assemblée dina def deux oui, ans bien sûr que bien sûr que euh, au mois de septembre Assemblée bi dina def deux ans mais président boobu li koy gën a arrangé tey. mooy ñu coupler élection présidentielle yi ak législative yi bu gagné mu am majorité confortable boo xam ne mën na ko démarrer. mais mën na bañ a am majorité aussi. bien sûr c'est un risque. c'est un risque c'est un na toog préparer les élections et puis am un un, un, un état de grâce boo xam ne mën na tax mu. gagné loolu c'est bu ci nekk c'est un risque. Ah. cest dire que benn président koo xam ne dañ ko élire ci présidentielle mu am la confiance des Sénégalais mën na. par confiance boobu muy gagné présidentielle bi gagné ko ay législative mën a gouverner confortablement donc bu ci nekk am na ay risques mais man gisuma ne par exemple loi boobu Euh, Macky Sall daf ko bëggoon vootelu pour moom mu dissoudre assemblée nationale mais bu dissoudre assemblée nationale tey c'est à ses risques et périls ban intérêt la am tey ci dissoudre assemblée nationale amu ci benn intérêt donc dissolution assemblée nationale boobu pour man kenn moo ci mën a am intérêt mooy le futur président maintenant c'est un couteau à double tranchant gis nañ ay présidents yu ko fi def dans le monde et euh, mu mu retourné wu contre ñoom donc Euh, par dañu nekk ci jamono joo xam ne jamono yu suspicion la jamono joo xam ne lu nit def surtout le président nga xam ne am na ñoo xam ne euh, damaa jàpp ne dañu bëggoon campagne ci troisième mandat bi euh, campagne troisième mandat bi rëcc na leen jamono ji lu ñuy def mooy jéem a xool lu Macky Sall teg lan moo nekk ci ginnaaw parce que j'ai vu des opposants yu avec l'esprit à l'esprit très fertile ñu ne Macky veut dissoudre après il va prendre la tête de l'Assemblée nationale euh, il va choisir John euh, si si non mais c'est <laughs> j'ai même pas ah, envie de répéter ça oui mais c'est des scénarios xam nga fi mu nekk c'est ah, nekk yaa ngi bind say scénario parce que encore une fois dama ne euh, am na ñoo xam ne ñi ngi ci opposition bi bu ñu waxantee dëgg Euh, Macky Sall nekkoon candidat moo leen. moo leen mooy mooy def seen affaire non moo leen doon arrangé. bu Macky Sall nekkoon candidat dootul doon une élection présidentielle dafay doon un référendum pour ou contre le troisième mandat bu boobaa. campagne bi dafay yomb parce que campagne bi du doon dara lu dul attaqué Macky Sall ne du du du nit kuy sàmm kàddoom euh, du nit ku ñu war a wóolu du nit kuy wax dëgg donc boo ko waxee aussi sénégal yi jàpp ko gëm ko topp la ci. léegi nag dañu nekk ci beneen cas de figure boo xam ne ñu bëri ci ñoom préparé wuñ ko woon donc li ñu mën a def moom li ñu mën a def en ce moment te ñi ngi koy def mooy tey lu Macky Sall wax. par exemple projet de loi bi daf ko indi moi il est clair que amul benn intérêt moom en ce moment dissoudre l'Assemblée nationale dissoudre l'Assemblée nationale pour faire quoi au fond à quelques mois de la présidentielle pour faire quoi donc kuy xalaat di nga xam ne en fait peut-être que lool bu ñu ko xalaatee c'était pour que équipe bii ñëw après 2024 mën na doon waa Pastef mën na doon keneen mu nekk à l'aise pour pouvoir diriger sans avoir à gérer des élections même au mois de septembre parce que quand même campagne électorale yi ci dëkk bi bëri mais mais au-delà de l'argument financier mais tamit est-ce que la la la non man waxuma argument financier est-ce que le président aussi mm. est-ce que le président sénégalais qu'est-ce quel quel quel quel qu'il puisse être est-ce qu'il ne verse pas dans la boulimie dans la boulimie de de de de, de pouvoir. non euh, man man euh, d'accord naa ak ñenn ñi bu ñuy def analyse ne Sénégal président bi dafa am pouvoir yu bëri. mu bëgg cee yokk boobu. Euh, non dafa am pré pouvoir yu bëri que dañu pour man pouvoir boobu mu am ko mu bañ ko am du débat bi nekkul foofu en ce parce que tey président Macky Sall bu ñu ko joxee pouvoir boobu doyewu ko dara. je dis encore une fois pour man président Macky Sall bu doon sàkku loolu et je pense que loolu c'est peut-être parce que dañ koo waxtaanee pendant la dialogue bu koy sàkku c'était pour que ki nga xam ne moom mooy gagner parce que tamit dialogue bi dafay ubbil candidature ñeneen ah, ay xalifa Sall ay Karim Wade ak keneen ak keneen donc l'idée c'était que kiy gagner mu mën a am les moyens de pouvoir gouverner pandant cinq ans yoo xam ne benn élection du ko troubler et dans le Sénégal. dans donc pour yow l'idée non dans la situation du Sénégal waaw. parce euh, que tamit non bien sûr dans la situation du Sén situation du Sénégal waaw maintenant il est clair que ñun bu ñu amee beneen président de la République boo xam ne moom mooy wutu Macky li mu war a liggéey pour euh, contrebalancer pour may institution doole loolu dafa bëri et li ci ëpp solo pour man euh, benn c'est vrai que waruñu jox. droit de vie et de mort à un président de la République sur l'Assemblée nationale boo boo xam ne saa yu ko neexee mu tas saa yu ko neexee mu organiser élection mais aussi pour man li ëpp importance mooy dañu war a dañu war a balancer sunu institution yi sa à dire sunu institution bu ñu joxee président de la République par exemple le droit de nommer de nommer aux emplois civils et militaires comme ni ñu koy waxee dañu war a jox assemblée nationale la possibilité muy def li américain yi di woowe check and balance cest dire que assemblée nationale mën a interroger la personne qui a été choisie par le président ba mu wóor ko ne kii am na possible c'est la bonne personne pour pouvoir faire ce travail là ñu doog ko valider président doog ko mën a nommer donc pour man dañu war a contrebalancer pouvoir ku ne Euh, pouvoir président dafa war a assemblée nationale daf ko war a contrebalancer justice bi aussi dafa am loo xam ne bu amee dañu war a mën a euh, euh, jokkoo ak justice bi et que justice bi du wax je suis incompétent parce que justice bi souvent présidence wala assemblée nationale wala ñeneen dañuy def yenn pouvoir yi dañuy def dara ñu jox ko justice bi justice bi ne je suis incompétent donc war nañ jox compétence justice bi aussi pour que assemblée nationale wala exécutif bu ñu defee lenn loo xam ne gis nañ ne lii dëppoowul ak yoon wala dëppoowul ak njariñu sénégalais yi mu mën a teg ci veto boo xam ne dina empêcher loolu mu am donc pour man dañu war a balancer pouvoir yi ok alors mais mais li ma gëm li ma gëm encore une fois ma koy répéter mooy euh, euh, révision bi président est c'était pas pour lui